أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk talibe yi maa ngi leen di ziar bu baax di santaat yàlla bu baax ci jataay bi di ñaan mu nangu ko te defal na ci lu kawe suñ njot ci daraja Sëriñ Tuubaa démb ñoo ngi tolloon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla rañaane ginnaaw boo xamee ne dund na ay coono yu métte métte métti ca la ko yàlla rañaane wax naa ne loolu lépp mi ngi am ci atum fukkeel bi mooy li gën a wóor atum fukkeel bi yàlla nag rañaane ko waxoon naa démb la ca aju lépp ba mu àgg foo xam ni mbindeef mosu fa àgg sayiduna jibril mi mu àndaloon ba mu àggee fi ñuy wax sidratul muntaha sayiduna jibril moom dafa wax ne mënatuma dem fii la sama kattan yem maanaam fii laa yem loolu la ko wax wa ma minna illa lahu maqaamum maalum masalan malaayka yi kenn ku ne daa am fa yàlla yem loo bindeef yi noonu kenn ku ne am nga sa yem waaye foo xam ne fa nga yem Seydina Jibril da ko dajaa teg ne ko su ma wéyee su ma doxee benn jéego rek damay lakk te yow loo gën a dox di gën di dolli ko ak leer yow yonte alayhi salaatu wa salaam moo tax yonte moom foofee la ko bàyyi wuti nag bërëb yu sell yu kawe yu yu màgg yu rëy yooyee nga xam ne moo boromam dong ñoo fa wéetoo meneen mbindeef ak suufa foofa itam fa la ko yàlla joxe julli juróom nga xam ni juróom fukki julli la ko joxoon waaye bi mu dëppee ba agsi ci Seydina Moussa Seydina Moussa dana ko juróom fukki julli de man xam naa nit ñi banu Israël ma ci ma ci moom ci ñoom la ma yàlla yónni woon te ñoom sax attanuñ li waxuma laak yow ñin ñi ngay dajal kon waaye nga dëpp suñu borom wàññi la ko yonente bi dëpp suñu borom wàññi ko ci fukk muy ñeent fukki julli ñu war ko def ci guddi gi bis bi ba mu ñëwetee ba Seydina Moussa Seydina Moussa waxati ko lool ne ko ñeent fukk ëpp na ñeent fukki julli boo ko defee maanaam ñu bari duñ ko julli tey maanaam dafa metti ñoom demal mu wàjjulaat la ci su su yonente bi dëppaat fa suñu borom tabaaraka taala mu wàññi ko ci fukk noonu la ko toppee ba mu des juróom yi yii rek Moussa ne ko dëppal juróom yi ëpp na ba tey ndax yow ñi nga taseel ci muti jamono lañ ne te lu bari da leen di fàbbi ci àdduna yonente bi nag ko fi ne nag istahyaytu min rabbi maa damaa ruusatee dellu di wàññilu ay julli foofee nag la kàddu gu bàyyi ko suñu borom tabaaraka taala ñëw yonente bi di wax yonente bi ne ko juróom fukk yëpp defal naa leen ko ci biir juróom yi nga xam ne ku julli juróom yi am nga yoolu juróom fukk yooyu yëpp gaañu baax ñi sax ñoom duñ yem ci loolu dala nañ ci ay naafila yoo xam ni mataat na juróom fukk daanaka loolu mooy gaa ñi gën a góorgóorlu ci lislaam moom la sëñ bi jàngale ci tasawut subbaan ak téere yii nii mooy bala ngaa julli tisbaar def ñeent boo jullee tisbaar teg ca yeneen ñeent bala ngaa julli takkusaan ñeent soo jullee timis juróom benn fukki fukk ak ñaar yi ngay def ak sa waa wetar muy fukk ak ñett boo ci boolee ñaar yi ci fajar li daa doon fi ne juróom fukk daanaka bu ma jumul du sooy foofu boo ci booleeg farata yi boole ci loolu nag boroom xam-xam yi gaa yu baax yi nga xam ne yàlla daa dundal seen xol ci leeru yàlla muy muy nit yàlla yi nga xam ne ñoo amee xam-xam bi ñuy wax tasawuf muy ihsaan ci lislaam al taskiya muy defar xol ñoom dañ ci dégg weneen déggin dañoo wax ne yàlla subhanahu wa taala ki dem ba gën koo jege lu mu ko gën a jege rek leer ko suñu borom day gën di sotti ko ci xolam te leerug suñu borom bu sotti ko ci ruuxug nit ki ak xolug nit ki day feeñ ci jëmm ji maanaam jëmm ji day gën di ànd ak leerug suñu borom tabaraka wa taala yonent bi nga xam ne nag àgg na ca bërëb boo xam ne nit mu mësu fa àgg nga xam ne leerug suñu borom bu sell ga moom la jan lool keroog mu sotti ko ca xol ba jëmm ji ba fees ca del wax ne ne Seydina Moussa ci moom bi mu ko gisee leer googa la mënta la mësta mën a joti nit mës caa mën a joti moo tax mu koy dëppaloo ko dëppwaat ngir mu gën a yokk leer ngir moom mu mos ci gis ki mu ko gis loolu waxi gaa yi tasawuf yi ñoo ñoo koy wax ahlu tasawuf muy borom xam yi nga xam ne ñoo ñoo gën a kawe ci lislam ndax ñoo féetewoo maanaam maanaam la la yonente ba doon def muy tazkiya ak mbirum xol ak ruux loolu ni nga ko xamee mooy ñi nga xam ne itam yàlla du leen a baax yonente bi waxtu wu ne ñuy jànd ak moom ñooñu yàlla di def ci ñoom leer goo xam ni bindee fi ci seen bopp duñ leen mën a muñ loolu moo xaw ci Serigne Touba nga xam ne moom waxtu wu ne danaa jànloog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam li ñuy yem ci lépp loolu ci gën a yemu mu waxtu wu ne mu jànloog moom moo tax min nit ñi mësuñu koo mën a muñ maanaam moom ci moom daa wax ci mu jëm ni man tëjuwuma tëju bari bi wax daa ne man fëtuma sama bopp tëjuma sama bopp jamonoo ma tëj ndax koo xam ne boo génnee nit faatu maanaam bu ma sa génn dëkk ba yuuxu yee la ko wax ñu niñ ko boo ko gisee doo ànd ak sa sago ndax leer ga nekkoon ca ca kanam gu sell ba si di ax ma dul di suñu day wax ne kaa nama ufri ufrigal jamaalu ala wajhihi masalan lépp lu di taar yàlla da ko sotti ci kanam Cheikh Mbamba maanaam mu ne mosuma gis jëmm ji maanaam ñu ngi ko wax ci téere bi muy tuddee al maqolaatu fil fil fil hadisat masalan li ma bëgg wax mooy Seydina Moussa kon gaa yi dañu ne lim do maanaam yonte bi yees gim yees ci jóge gam ci jóge fa suñu borom ak leer gim ci amee loolu la ko wax mu koy delloo ko delluwaat teewul nag lim ci amale dun xeet bi itam gis nga ko mooy ñu wàññi ñu julli ba mu juróom juróom sax gis nga gaa yu bari duñ ko julli ëpp na ñoom ñoo xam ni julli moom fi ne maanaam juróom yi ëpp na ci ñoom benn sax fi ne ëpp na leen waaw bu bu jotee daanaka dañuy tayel tayel maanaam fi ne li suñ seeru bu baax ma daa wax dinañ gis waa joo xam ne kër kër jëm ne ak coono ba moo gën a sedd fuuf julli ñaar rakka waaye seytaane ci moom moo koy jañ sa cee lële bàyyiloo ko julli gi xam nga julli moom wax dëgg yàlla coono bi bëriwul lool dañuy gis ñoo xam ne coono yi ne kër kër joo xam ne moo gën a sedd julli waaye loolu seytaane mooy doxee waxtu wu ne noonu day fexe ba la amut tuyaaba ju bari la lay gën a jëm si jañse dina ci gën a puus ngir bàyyi loolu di ëpp solo julli lu dara ëpp ko solo julli fi ne ki nga xam ne xolam dundut ci leerug suñu borom maanaam ki nga xam ne xamul dara ci islam fi ne bu koy séen ñuy dem ak sëgg ka siggini day jàpp ni ñu dañuy fore waaye ay ay secret ak mbir yu bari moo ci ne ki koy def mi ngi déeyaaleeg boromam maanaam foofu lay gën a jegeeg boromam te suñu borom mi ngi la maanaam di sotti ci sa xol ci waxtu bi ngay julli ay xeeti leer yoo xam ni mooy di raxas sa xol di de génne mboolem jàngoro yi nekk ci xol xam ngeen ne xol dafa am ay jàngoro boobu yoo xam ne ay feebar la ni jëmm ji feebare yooyu yëpp waxtaan nañ ko ba tey waaye kon julli lu am solo moo tax suñu tubaab daa ci soññee daa wax ne wajtahidu fi salawaatil xams wax na ko mooy na ngeen ci farlu wax na feneen itam ne maanaam sallil faraida maa tawaabixi maanaam bu leem ci julli farata waaye dee ci boole neefere yooyu ñuy def nga di ko ci boole yow murid am na feneen foo xam ne wax na ne wala tuwaxiru salaata maanaam bul ko yeex bul xaar ba waxtu bi jàll nga doo ko julli wala tuwaxiru salaata am amdan maanaam bul ko yeexe te di ko tey fu mu jotee rek gaawal def ko suñ tuba bokk na ci liñ ko misaale mooy moom mësta yeexe farata maanaam fu waxtu bi julle jote rek fa saase la koy daal def am na naar cheikh mohamad mis cheikh mohamad mis mas ne net na am na kenn ci salibe bi dëkkoon Mauritanie mooy fàtte tur wi mas na ko ne sëñ bi julli tisbaar jot nee na mu ne ko sëñ bi te ngaa noppal sa ba ba ba ba ba kër gi xaw a sedd tuuti li nga def ñu nodd rek nga bëgg daal kër kër julli mu ne ko man de dama bëgg fa ma yàlla digale ma laa defee foofa ndigalam bugguma caa nekk di xaaral dara kon lu am solo la lu mat a bàyyi xel la loolu nag fii lañ ko amee muy rañaan googee rañaan gi itam wax nañ ne yonente bi alayhi salaam dana nettali ci xadis yu bari yoo xam ne day wax ne ba mu demee ba ca pays yu sell yooyee suñ borom lam ca wàqanteeg moom mooy da ko wax ne ko xadis xadis taxasuka xabiban mooy yow laa def ngay sama soppe xam nga Ibrahima mooy xaritu suñu borom waaye xarit ak soppe suñu wuti nañ soppe mooy di gën a foot wa arsaltuka linnaasi kaafatan basiran wa nasiran yabal naa la itam ci nit ñëpp nga leen di bëggal ak di xupp ñi nga xam ne nangu ñoo jaaru yoon saraxtu laka sadrak mooy sa dënn tey leeral naa ko maanaam fa la ko defarale maanaam maanaam xolam ak xelam lépp njàqare génn ci yaatal dëndam teggil ko mboolem luy nuru lu junu yëkkatil ko aw turamit ni mu ko ko yëkkatee mooy fu ñu tudda yàlla tudd ko bu ñuy nodd bu ñuy ashhadu an laa ilaha illallah dañ ci teg ashhadu anna muhammadan rasulullah boo julli sax julli bi gën a màgg ci lislam boo ko julli faw boo ne ashhadu an laa ilaha ci taay ji da nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah tur wi noonu la ko yàlla yëkkatee def naa itam saw xeet mooy ñi la topp ñoo gën ci yeneen xeet yépp yow ma xiyam wax na ne jullit ñi buñ demee bay romb maanaam dañuy maanaam malayka yi ci moom ñoo leen di escorté wax yeneen xeet yenn jiite woon yëpp ak yeneen yeneen yeneen jullit ñi ñi nga xam ne bokkuñ ci xeetu lislaam ñu leen arrière leen ba ñuy jàll ñi ñooy al awwaluuna al axiruna maanaam ñoo mujj ñëw te ñooy njëkk ñoom lay njëkk a jël seen mbir yeneen xeet yëpp arrière nun ba lijjantunu ba bàyyi gaa ñu doog a lijjanti gaa yi ñu te loolu ci dara ji yonte bi alayhi salaam lañ ko am yonte bi itam foofu sàkkul nanu fa loo xam ni nit maanaam maanaam maanaam ba loolu rek waroon naa tax jur ñëpp bëgg ko mooy mooy moom yonente bu ne yàlla dalaa jox ak ñaan goo xam ni du ko du ko delloo waaw yeneen ñaan yi ngay ñaan yëpp mi ngi neex suñu borom bu ko neexee dellu bu ko neexee ba ne am na ñaan goo xam ne moom dala wax ne moom du ma la ko assuré naa la ko nga xam ne moom du ma ko delloo moom yeneen yonente ya jiitu woon nag kenn ku ne sa ñaan moom gis nga da nga koo ñaanal sa bopp maanaam gis nga Seydina Muusa dafa wax suñu borom ne ko wala tuxzini yow ma yubaasuna masalan bul ma bul ma fa teg gàcce yow mal xiyam moom foofu gis nga bopp bopp rek sax nag la ñaanal yonente bi nag dafa xam ne moom ak ñaanam da koy bàyyi ba yow mal xiyam foofu la koy bàyyee foofu la koy bàyyi ngir yàlla bañ a mbugal kenn ci aw xeetam foofu la ko bàyyi maanaam ñaan gi da koy bàyyi ba yomal xiyam nga xam ne ñaan gi ñaanu ko fii ci àdduna nga xam da koy bàyyi ba yomal xiyam mu ñaan fa lu loo xam ne xeetam yëpp dañ ci jaare mucc yàlla itam wax ko ne ko yawma laa yuxzi llahu nabiyya walladina amanu maahu masalan bis booba mboolem ko gëm ànd ak moom yàlla du la teggaat yàlla assuré na ko loolu ci alxuraan ak yu bare bare yoo xam ni saar bi nga xam ne ci la yàlla dajale yii yëpp mu sootu duha bi mu wàccee saxaaba yi dañoo bëgg wax ne kat ndax da ko wax ne ko wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda yàlla dina la joxa joxa joxa joxa jox ba nga bëgg li nga doon sàkku lépp yàlla doon la ko jox te yonte bi li mu doon sàkku la ci jiitu mooy xeetu mucc wax ne am na genn guddi goo xam ne benn aaya la taxaw di ko wax di jooy di ba fajar di ko julli mooy li mu wax ne ko in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al azizul hakim loolu lay wax di ko waxaat di ko waxaat di ko wax bu sëggee nekkati ja benn ay ba fajar jibril wàcc ne ko yàlla suñu borom xamal na ne tiit mi ngay tiit nii ci saw xeet jëru ko dana la joxa joxa joxa jox ba nga soxal sedd ca la nag xataa noom nu saabit moom wax ne qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fa sarra qulubana zaaka al ataw ma fàtte bay doo ci topp mooy wa ndax wa hal yuhaanu fi wa hal yabqa fiina man yuhaanu aw yuazabu mu ngoog maanaam da ko wax ne ko jàng nañ ci saar woowu yàlla wax la ne la dana la jox ba nga ba sa xol sedd loolu nag moo ser moo seral suñuy xol wa hal yabqa ya rasulallahi fiina man yuadabu aw maanaam wa hal tarda ya rasulallahi wa fiina man yuadabu aw yuhanu beneen bay bi loolu la mooy maanaam dama danoo xam ne yow yonente bi bala ngaa bég wala soxol sedd faw jullit ñëpp dañoo jàll kon yooyu yëpp ñu ngi ko amee ci isra wal miraj foofu lañu yemoon dem maa ngi jégalu ci guddal gi